waaw Seydina Alioune ñu lay nuyu. ñu lay fay. maa ngi si jàmm rek. alhamdulilah. tabaarikal. ginnaaw bi nga bi ñu la nuyoo. waaw. dafa bu bees boo xam ni mu ngi fii ci Fambaye Ndiogu. Mm-hmm. di fii ci Kër Alfu Combaan. rawatina tamit li nga xam ne mooy Morolan yëpp. waaw. télé tamit nekk eh, FM TV. Mm-hmm. li ko tax a jóg rek moom mooy juste rek bëgg xam nan mooy cosaanu yenn ci kër yi xam ne moo nekk ci Alfu Combaan. Mm-hmm. mooy Fam Nang wala Fam Téere ñu nga fi nga mooy kër Fam Baye Assane. waaw nga xam ne moom mooy Alioune. Alioune hmm. ginnaaw loolu lépp. waaw ñu ngi leen di fay. di leen sant di leen gërëm. ah lii de lu baax la lu rafet la. Hmm. Ah, aussi boole leen ñëwee fii ngeen di dégg may laaj mbirum sama Baye Assane dinaa ci sawar hmm. ndax Baye Assane Mbengue mooy sama maam mo ju sama sama baay ak sama baay yi nek ci kër gi kër gi fiñu tok toog moy kër Cheikh Mbengue Cheikh Mbengue moma jur nga top ne kër Mor asam Mbengue nga topat ne kër Adama Mbengue nga topat ne kër euh, malik nga topat ne kër Modou Lam te nekkoon fii dem fi dëkk bu ñuy wax ñeer waaw ndax mbirum doon na séeréer moo tax mu dem foofu loolu bokk na ci li nga xam ne daal mën naa koo njëkkee. mais tey bu ñëwee kër Daaru Alfouta Mbaye. Mhm. tey est-ce que mën ban at wala ban jamono la Pape Mbaye ñëw fii ba sant bi la biir ah, de wax dëgg yàlla. at mi man xaw ma ko maîtrise ma ko waaye li ma sama maam wax ak samay baay wax mooy ni ne Fombe Assane fi ñuy wax gént pënkuy foofu la jëkkee woon bi mu jógee foofu mu ñëw fi ñuy wax njeneew njeneew mhm. soriwul balaa nga boo àggee sama cee côté bii féete nii foofu ma tudd njeneew amoon na benn guy gu mag boobu fa nekkoon ñu koy wax guy julli euh, dëkk yi nekkoon fii yëpp foofu la doon daje seen tëgg yeeg seen bëre yi foofu lañ ko doon defee jekki-jekki boobu bi ñu nekkee foofu nag sama baay ak sama maam ñu ne boobu taatu mbul bii nekk fii ñu wax laman fii mu ne taatu mbul boobu seen nag yi foofu lañ leen doon yeew boobu fii dafa nekkoon àll bu njëgee jël nay def takk leen foofu léegi ba yàlla def ñu toxu fi bi ñu toxoo góor gi bi mu fi toxoo moom njëkkiwul fii moom fee ci ginnaaw ci mango bi foofu ci ginnaaw foofu la njëkkee woon ci li ñu wax jékki gi ñu door a randu fii néeg néegu góor gi moo nekk nii léegi doomam yi wër ko doom yi mooy ñi ma ñi ma tudd sànq ñu wër ko fi ci li wax ñu ni kër gi di kër bay Assane moo njëkk fii ci Darou Alpha waaw. moo njëkk fii. njëkk fii ci Darou Alpha. waaw dara am fi woon. boobu dara am fi mhm. yaakaar naa ne gis nga tool bi fii ci ginnaaw. tool boobu ci teen bii la jaar. Mhm. jóge ci teen bi jaar ci biir kër nang ah, faam nan waaw faam nang bi mu jaaree faam nang ci mbul bi la jaar ci digg diggu tool bi laa la de moom bi mu jógee ci mul boobu amoon na benn taatu garab bu nekkoon ci kër Serigne eh, Malick file benn taatu garab bu am dëkk nii foofu la jaar mu xotti ni jaar kër Daawda mu jaar mbul boobu ah, kooku daal mooy kër gi mais parce que jàkka ji ci biir ah, waaw moom la tàmbalee ci moomeelam. waaw dafa jëlee fii ci kurwa. waaw ñëw ba ca peggu mel ni ku jëm nee ci kaw. waaw jaar te gudd kër sëñ Malick Ba. toftale nii daal wàcc suuf mel ni ku jëm kër Daawuda Ba. waaw loolu lépp mu nekkoon moom suufam. suufam moom moo ko moomoon. Ah. kon loolu moo sabab moom mu am moomeelu. waaw waaw wàllum suuf waaw ah, parce moom dañ koy gor taa boobu dañ koy gor parce que boobu àll la woon bari ay garab mhm. foog da ngay ñëw gor ko mhm. nga lakk door a am tool boo xam ne ñu xam ne lii sa moo mhm. tool la njëkkoon waaw tool la njëkk waaw waaw dëkkuwaay bi am na suñu benn mbokk bu nekk fii dàgg wax nañu ni ci làmmañam laa ko dégg waaye dégguma ko ci sama làmmañ papa wax dégg waaye mu ne fañ tool dafa moom fu mu doon nekk rek dafay am lu koy wax ni place bi du fii waaw fu mu nekk daal dafay am lu koy wax ni place bi du fii ba yàlla def mu àgg fii loolu daal lañ ñu nettali ni daan def moom fu mu dem rek. Hmm. am lu ko wax ne. dara. waaw ñu ne ko palaas bi du fii. dafa am baatin bu leen feeñu xamal ko ne ko daal du fii. waaw feneen la waaw. kon dañuy mën jàpp ne bi mu daal. waaw lan njëkk daal ne fii la. waaw fii waaw kon fii la. Mhm. ginnaaw bi loolu ngeen nekk ci ay ndaw. waaw mel ni yow fi nga gënee jamono. waaw dëgg la. bi nga gënee fii nan la fi meloon yooyu jamono. tolloo woon wala daanaka meloon na ay dëkkuwaayam. non ñun ñi xam ne ñun fekkee woon ñu lu bari. Mhm. mëna wax sah sax euh, sama mag bi pap mhm. Mbengue mo mhm. féké sama mam man ma sama mam mhm. waaw man sama sama baay yi da fi fék mam ñi nekk ci gëb gi di samay baay ñu mon féké na leen way sama mam fék bi muy dund bo man juddooguma ñi am na loo xor tuti ji sa digganteeg sama mam ak góor gi Alpha Hima ndax histoire wax na ñu bari ne mom mo fi dalalon góor gi nga mooy maam Alpha Hima Thiombane ndax loolu am ci aw leer. bi mooy mooy lii lii ñëpp wax rek te muy dëgg. ba dem na ci sax mbirum gàmmu ñuy werante ñu ne nag bi nga xam ni moom la sëñ Alpha njëkkoon a ñu ni ci géttam la jóge bar na werante nag waaye li ñu suñu bàyyi wax daal mooy nit nag boobu ci gétt bii la jóge dëkk bi waaw te loolu lañ jàpp ñun ñii encore. te moom kon donc ci yooyu histoire moom ku bëri woon ay xeetu mala la mel ni ay xarak ay nag yu ni yi kay ñu ne bëri woon na ba nga xam ni soow mi boo koy naan bëgguñu woon sax nga def ci ndox. ndax ndax ndax bari soow bari nag. waaw loolu moom nettal nañ loolu te loolu amoon na. amoon na mhm. mais tey laaj bi nga xam ni mhm. euh, waaw. Yen seen wayjur gane fi jamono waaw yéen ngeen gane fi jamono hmm. tay xalé yi wat fi di seen seen njaboot hmm tay bu amoon message bo xamni ni ngoko lancer bu xalé pour yi xamaat ni seeni mam ba ñuy sanc kër yi lan la taxoon sanc ko ndax message bobu mën ngoko lancer ji yi day seetlu xalé yi bari ñoom dañuy bàyyi seen kër mam ciosan ya dem dekk Allah ci Allah ya dekk feneen duñ ko bàyyi duñ ko duñ ko duñ ko duñ ko wat xel di fi ñewat at bu nek loolu loolu reel la rek hmm. ndax fi nga dëkk fi nga xam ne da nga fekk sa maam sos ko nga fekk sa baay sos ko boo ko bàyyee dafa mel ni da ngaa bàyyi sa ànd dem ci ànd keneen te ñu boo bàyyee sa boo wàccee sa ànd ànd boo mën a dem rek foog nga fekk fa borom waaw kon nga ñëwoon ci sa cosaanu maam ñëw ci sa cosaanu pap moo gën fuuf ngay dem ci cosaanu keneen. waaw. waaw mais tey mu am télévision bu ñuy wax FM TV. boo xam ne doomu kër Alpha Thiamane moom moo ko moom. Hmm. mu ñëw fii nag ngir fas yéene liggéeyal li nga xam ne moom mooy gox bi nga xam ni moom mooy tund Marolan yëpp. Hmm. nekk fii ci kër Baab euh, Malick Ndiogou. waaw tey boo amoon kaddu boo ci sànn ban kaddu lay doon. xanaa am ci kontaante. Euh, lii yal na yokk. Hmm. te li nga ciy jublu as encore yal na la yàlla defal lu kawe sa njort. lii bu amee dafay mel ni dëkk bi mu ngi am développement ndax yu mel ni mooy tax dëkk ñu mu mën a feeñ mu nekk dëkk boo xam ne aussi nit ñi dinañ ko mën a xam bu baax a baax lii moom fu ca li lay ñaana mooy rek yàlla na la yàlla jàppale ba liñ ci mébét yàlla defal la ko loolu daal lañ la ñaana te yàlla may la gudd fan ak wér waaw ba fi nga ko bëggee daal yàlla defe ko noonu kontaan nañu bu baax mhm. wax dëgg yàlla waaw ndax lu taxoon bi jóg dëgg-dëgg mooy soññiwaat ndaw ñi mhm. ñu xamaat seen cosaan xam fan bàyyee ko xam tamit seen i maam leen liggéeyal ndax xale yu bari buñ jógee fii am Dakar mhm. dañuy fàtte fan cosaanoo loolu moo waral bi xale yi ñoom dañoo réer surtout maa yow li sëriñ Alpha def fii nga bàyyi sa cosaan nga nga nga jekki-jekki fekk sa baay mu nekk fi sa maam nekk fi nga ni defay nga taxu dem fenen manam budé walu wàllu nga bayiko dem te ku nek xamna ni serigne Alpha limu def fi ba mu tuubal ñu bari maam yi fii loolu ku ko xam yaakar naa ne waroo mën gis lenen ba fuñ tol lolu gënal leen waaw ci ci sama gis-gis lolu dal xamna ni mom inshallah allah ñu ngi ci ba bis bi ñuy yalla di jël lolu la ñaan yàlla. lan kàddu ngay taggo mm, lay ñuy moy yalla ci yalla def barke. amin yal na yàlla may wér may sa njoboot wér may ñëpp wér yàlla defal ñu jàmm naatal dëkk bi lu mel ni yal na ko yàlla saxal fii muy mu bari mu bari mu bari ba nga xam ne fañ tollu dëkk bi dina bokk ci dëkk yu ñu ràññee wa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala